talaata fukki fa nag euh, benn ci weeru mars atum 2014 mbokk yi teewlu télévision Futur Média bisimila ci xibaaru digg bëccëg bi euh, ponk yi ci gën a fés euh, boo ñuy luy xamle nag ni fii ci Sénégal am na ab kuréel bu fi nekk ñooñee nag ñu duppee leen ay way fibu wala sax book ñi nga xamante ni dañuy daal di jihaat ci l'islam nee nañu nag ñooñee ñi ngi teew fii ci Sénégal mu nekk kàddu yoo xamante ne mi ngi tukkee ci gouverneur bu diwaanu Louga gannaaw bu mu doon jiite ab ndaje ngir waajal màggalub euh, xalif euh, général des Mourides ca Mbàkke euh, Kajoor leneen it ci wàllu xibaar yi daanu addu ci Moustapha Niass Moustapha Niass mi feddali àndandoom ak njiitu réew mi Macky Sall partem ba di APR la ko far jébbal ni ki démb nag la ko xamle ci ndaje bi nga xamante ni ni bureau bu AFP amal na ko waaye loolee ñuy wax nag ne boo sàgganul dana jur ab beddiku ci parti bi ku ci mel ni Malick Gakou boo moytuwul du ko nangu ñuy xippi seen l'observateur na ñu nu ñu xalaatee ci mbir mi daanu addu itam euh, ci projet bi nga xamante ni tëral nañu ko euh, tamu soxol nag euh, kaaraange gu doy ci wàllu dund projet boobee nag dana soxol diwaanu Louga Matam ak Kaffrine lim ci jublu rek moom mooy fexe ba dund gi doy jëwriñ ji nga xamante ne nag ñoom ñoo ci ànd muy jëwriñ ji dénk wàllu mbay mi ak jëwriñ ji dénk càmm gi daañu waxee ci wàllu drogue ci lu yaatu lay doon ci biir xibaar yi drogue bi ak ni muy lëmbee Sénégal loraange dong lay jur euh, donte sax am naa ab loi boo xamante ne loi latif moom dafa doon sàkku nag euh, ci wàllu drogue bi ñu gën koo xeex ci euh, senegal teg ci ay daan yu metti lii buñ ci tegee xibaaru tàggat yaram yi ak li yéene kaay xëyandoo xibaar yi dafay daal di yemb bu ngeen taaxir la tuuti ñu fañ fàcc li yëpp Euh, jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias ñu di ko tàmbali ak kàddu yu tukkee euh, ci gouverneur euh, bu Louga muy xamle nag ni fii ci Sénégal am na ab kuréel gu fi nekk kuréel googee nag ñu gën koo xam ci ñooñee di jihaat ngir l'islam kii nag di gouverneur bu Louga yëkkati na ci ay kàddu di sàkku nag ci askan wi ñu def ndànk bu baax tey teelu loolee nag mi ngi ko doon xamle ci ndaje mi nga xamante ne nag mi ngi ko doon jiite ngir ñu waajal màggalub xalif général des Mouride ca Mbàkke Kajoor Mbàkke nekk ci diwaanu Kébémer Thierno Fall ci leeral. ci ndaje mi nga xamee ni ñu ko amal fii ci diwaanu luga ngir waajal màggalu Mbàkke Kajoor liñ fi gën a fesal bokk na ci wàllum sécurité kii ko jiite woon di gouverneur de la région bu Louga moom ñaan na ñu bàyyi xel bu baax mbirum terrorisme mi nga xamee ni si law na ci Afrique. parce que lu ñuy wax cellule dormante islamiste mu ngi fii Sénégal am na jamono yële ñu joxe institution. ñu joxe information yu naan ñu bëri ñu ñu fekk Libye ci ay base d'entraînement Al-Qaïda ñu ci bëri ñu ngi làkku olof soit c'est des wala ñoom ñu jàng jàng olof pour mu bu ñu ñëwee fii ñu mën a sëy ci ñi donc bu ñu wax ne dara dara dara nekku fii lu nga xam ne lu ragatlu la lu aju ci wàllu sécurité boobu kii di commandant compagnie gendarmerie bu Louga moom xam le ne ni bàyyi nañu xel bu baax def katu ñaawteef yooyu. li ñuy soññu population bi rek mooy ñu gën ñoo ñeme gën ñoo jege lépp loo xam ne gis nañ ko loo xam ne xamuñu ko wala koo xam ne ñu koy doo gis ci gox bi mu yore melokaan boo xam ne xamuñu ko. ñu woo gendarmerie wala dem ci brigade gendarmerie signalé ñu ko. màggal gi nga xamee ni ñu ngi koy waajal mu war a am le 12 avril nag gouverneur de la région bu Louga ak ay service am ñoom xam la ne ni jël nañu mboolem matuwaay ngir lépp jaar ci yoon. lu nga xam ne nag moom lañ fi jëloon comme engagement mooy chef de service wax ko fi ngeen dëkk ko incha allah dinañ ko topp. réunion bi gouverneur bu Louga moo ko jiite woon fii ci diwaan gi nag waaye ci teewaayu lenn ci njabootu sii di Mokhtar Mbacke di xalif général kul murit ñu gën cee ràññee Serigne Cheikh Thioro mi nga xamee ni si moo yor kàddu xalif bi waaye itam teewaayu mbooleem chef de service yi nga xamee ni si ñoo nekk ci diwaanu Louga. na Fall ñu di ko jaajëfal bu baax waxoon nañ ko ci ponk euh, xibaar yi Moustapha Niass nag daal feddali féddali euh, àndanoom ak euh, njiitu réew mi Macky moom nag parti ba sax la ko faf jébbal ni ki démb nag le bureau politique bi doon amal ab ndaje ci noonee nag kii di Moustapha Niass xamle na ni nag ne moom dana ànd ak Macky Sall képp koo xamante ne nag da ngaa nam beddeeku moom dana la teg fële loole nag mu doon loo xamante ne nag kon yëkkati na ko ci ndaje ma ñu doon jublu rek moom mooy gën a waajal faluk euh, gox-goxaan yi euh, di wote bi ñu war a amal Ibrahima Kane Aline Diagne. pour défendre ce que nous avons gagné l'appui euh, léegi ni euh, kii démb kon bureau politique bu AF AFP euh, doon amal ab ndajeem ndaje moomu nag liñ ci jublu rek moom mooy Moustapha sa jébbal àndandoom ak Macky Sall ndax parti ba sax la ko faf jébbal ngir gën koo gunge ci woteeb fal gox-goxaan yi nga xamante ni ci lañu ñu dëkkmal dañ ci ànd ak Ibrahima Kane. a confié. ma boobee euh, yembagul euh, fële nag euh, ca diwaanu Matam foofu it ñu gis ni woote bi nga xamante ni nag procureur diwaan ba ma ngi koy woo ña fa doon yee fitna mi ngi wéy ba tey ndax gannaaw meeru gox ba di Mamadou Mohi Diaw Farba Ngom moom it woowoon nañ ko foofee ca commissariat de police ba loolu nag mu doon loo xamante ne procureur ba moom nee nag ba mu ko defee ba pare am na nag ay xoqatal yoo xamante ni jóge na ci ay njiitam Ali Bandel ci leeral. juróom-ñeent fan gannaawu xeexoo diggante militant wu ba ñu si bëri jële ci ay gaañu gaañu yoon kat bëgg naa doxal ba mbir yi leer nañ audition kilifa ci wàllu politique yi tàmbali nañ ko Mamadou Mori Diaw meeru Matam moo njëkk jaar ci kanamu enquêteurs yi ci njiitalu commissaire centrale bu Matam. Euh, procureur après sortie am laa jot convocation bi convocation bi samedi laa ko jot. j'étais convoqué à 9h euh, huit heures cinquante cinq maa ngi fii di di di déglu commissaire lu mu wax donc euh, posé naa ma ay questions yu bare Euh, quinze question yi répondre naa ko léegi jeex na puisque man tamit citoyen la ordinaire comme tous les sénégalais suñu ma convoqué je suis obligé de venir répondre la la. ñaareelu kilifa ci wàllum politique bu ñu waroon déglu mbir mi amewul ci waxtu wuñ ko bëggoon na waaye modis yi di PCA wu SONES jaar na ci tontu ci kàddu tuuma yi kilifa ci wàllu politique yëkkati teg ko ci ndoddam. Farba jógee na fële citoyen sénégalais ñu ne du dugg Sénégal ci constitution bi loolu tere na ko mënoon na ñëw mu recevoir ko ñun ñëpp ñu dem ñu wax li ñu wax yow gis nga affaire bi ni mu doxee bu fekkee dañuy juboo mais est-ce que xuloo woon nañu sax ah comme ay bal fetal sax dégg waaw que man dinaa wax dara man naa wax ne bal yooyu dañ ko tiré nii rek en l'air sommation la mais yow gis nga bi bari bi ñu ñëpp dañu daw mais man je dis aussi aujourd'hui ici je saisis pour dire que loolu bu amuloon tey ñun ñëpp ku ñu ñëw jaare ci ci yi ngay fekk ñu ngi tëdd ñu ñëpp dañu naroon dee ay gourdin ay paaka yu lu nee la ñu indi ay nit ñi nga xam ne dëkkuñu ci biir dëkk bi droit maatam te bu ñu paree ku ne jox lañ 5000 francs yooyu gis nañ ko ñun waa ak niñ ko doon xaaree ca dëgg-dëgg député Farba Ngom ñu ngi koy xaar ci kanamu enquêteurs yi alxamis gi ñu la député bi doon itam responsable APR ci diwaanu Matam feddaliwaat na taxaw ngir wuyu bépp convocation mu jóge ci police wala mu jóge ci procureur. ñu des di wax ci fitna yooyee ci wàllu politique nu ko askan wi euh, gisee askan wi nag euh, ñaawlu nañu ko bu baax ndax bu ñu seetloo ci mitin yi ak ñuy dugg ci langue politique daanaka ci fitna rek lay mujjee nit ñi di xiiroo ak ŋaayoo ak di xeexoo loolee nag nee nañ euh, na dakk te ñuy sàkku nag ab dal bu baax Maymuna Njaay Maardien xeexoo waxante lu ñaaw askan wi nee nañu doy na sëkk bëggatuñu parti politique yi seen i ndaje di mujjee nii. bi ñuy fii jëlee góor gi bon dañu ne woon lu bees lañ bëgg loo xam ne lii par exemple tey ñëpp askan wi kenn ku si nekk dina si yëg boppam bon Macky nag bon vraiment ñu ngi koy déglu du dëgg ñu ngi koy déglu. dëkk boo xam ne toujours coow histoire guddeeg bëccëg xeex loolu xamuñu ko ñun daal suñu avenir njaboot la ñu soxla ëllëg ak ñun ñi suñu bopp suñu suñu suñu suñu suñu dund neex. bu fekkee jàppante yooyu ci parti bi jiite réew mi la soqeekoo foofu la askan wi di yéemoo. ànduñu tàqalikoo ñu même parti même parti APR bi nga xam ne mooy moom moom la Macky Sall a jiite yaa ngi dëgg yëngu-yëngu yi yaa ngi dégg bon vraiment am na si loo xam ne lii bon damay gis ne ñaawteef la quoi. parti au pouvoir moom mi nekk si nguur gi moom waroon a joxe joxe exemple moo gën parce exemple nit ñi seen xel day daal ci noonu Alioune Tine ne faaw sottante xalaat am ci. politique dafa noble action boo xam ne surtout bu fekkee ne ay élite ñoo koy def buggu nguur gi buggu parlement bi dañu war a am comportement boo xam ne bu exemplaire la. acteur politiques yi vraiment ñu seetaat seen bopp ànd ak seen sago du ñëpp nag ba nga xam ne daal. dëgg-dëgg citoyens yi nga xam ne ñoom lañuy xool ñu fexe ba nga xam ne mérité nañu confiance bi ñu leen jox. ñu ngi ci jamonoy rentrée politique yi politiciens yi ku ci ne di fësal ni nga mënee lu ne xaj ci nag xanaa kay ñu moytu yenn yi. tolluwaayu yalwaan bi ci Sénégal jéggi na dayoo lool rawatina ci réew yi nga xamante ne ñoom ñoo fare Afrique euh, saw jant euh, ci seetlu ay junni junni xale euh, yu am ñeenti at jàpp fukki at ak juróom-ñaar dañu gis ni dañuy faral di yelwaan ci mbedd mi loolee tax rado daal di door démb ab projet ngir gën a mën a xeex yelwaan gi ñu teewlu ci Abou Bakri Mbodj secretaire général bu rado ci micro Maimouna njaay xoolee dëkk bu mel ni Dakar ñi fi nekk di def euh, di di di yelwaan euh, du ay xale yu jóge ci Sénégal rek am nañu ñu jógee ci ay régions yi mel ni Thiès région Kaolack région euh, Ziguinchor ak région de Kolda mais am na ñi nga xam ne ñi ngi jóge ci yeneen dëkk yi ñu mel ni Guinée-Bissau ñi mel ni Gambie ñi mel ni Mali ñi mel ni Niger loolu moo tax nag ndaje bi ñi yaatal ko ci dëkk yooyu yépp ñoom ñëpp bi ñuy dajee pendant trois jours di saytu question mendicité ci Afrique de l'Ouest yaakaar nañu ni dinañu mun a egg ci ay conclusion ak recommandation bu ñu ñibbee ëllëg ku nekk sa dëkk ñu xool nan la ñuy war a def ba mendicité li nga xam ne li ñuy wax ne yelwaan mu jóge ci Afrique de l'Ouest mbootaay gi ëmb imaam yi ak ulema yi ci euh, Sénégal ñoom nag ànduñu benn yoon ti ñu yoonal li nga xamante ni jëm na ci euh, yàq biir bu dee soxna soo xamante ne ni euh, dañu laa sàkku nee nañ nag lu jëm ci yàq ëmb ñoom ñooñee bëgguñu benn yoon ñu yoonal ko fii ci Sénégal loolee nag mu doon bébét boo xamante ni mbootaay gi ëmb soxna yi yëngu ci wàllu yoon fii ci Sénégal ñoom ñoo ko doon bëgg ant ci nag ak commission bi nga xamante ni moom mooy saytu wàllu wér-gu-yaram ca pencum ndawi réew mi ñu ànd ci ak Chérif na Thierno Laurent Mendy kuréel gi ëmb imam yi ak ulema yu Sénégal bëggu ñoo dégg mukk xalaatu yenn ci ay soxna ñu bëgg rek ñu daal di daganal lii di yàq ëmb ci yenn anam maanaam ñun sàkku am nañu yaakaar ne daal war nañu mun a am loi boobu mu am lu ñuy wax euh, avortement médicalisé. Euh, ñoom dañu wut lu bees rek. dañuy xam nga nit ñi dañuy créer rek. ne député lañu ay soxla lañu ay juriste lañu ñu ngi leen di respecté mais it nañ ñu bàyyi ci suñu diine. ñuy dindi ay biir ak di rey ay nit yooyu yëpp. lu lislaam sib la lu lislaam araama la buñ ci dugg buñ ci wax ëmb yoo xam ne léeg-léeg tamit daf leen dina rasonal bee boo ñu leeral mbir moomu rek maye ku bugg ndax droit la tamit santé reproduction bugg mun a jur loolu droit la tamit de ku buggul jur doom it kenn warul a forcer nga jur doom ñun dañ ci opposé wu complètement ko ji opposé wu te di wax nag li lislaam wax te nekk fi lislaam nekk te téye li lislaam wax bu ko nekk ebee fa mu war a em loolu du am du ñu bàyyi nit mu foo ba ëmb du ñu bàyyi nit di wane ay cëram ba ñu sàkk ko mu ëmb naan noonu dañ ma kii dañ ma drogué dañ ma dañ dañ ma nax dañ ma lii loolu dañu ne awra nañ ko bàyyi fa mu toog bu ko kenn moo moo ay ñoo em bu ko kenn yëngal ku ko yëngal rek gis ko. ñaari wàll yi ku nekk ak sa gis-gis wante lu soxna yi lu nu bëgg rek mooy lii di sëy yu teel yi ñu daal di jël yoon teg ko ci ñi koy def. ndax xale lu 14 15 ans nga jël ko maye ko am nañu yaakaar ne 18 ans fukki at ak juróom-ñett baax na nga mun ci maye doom. ak viol sàkku xale yi ak inceste ku ko def war nañ laa teg daan ndax quand même du ñu ay bàyyi ma ay nit lañu. ngir wàññi soxna yi ci kaso yi kuréel yi ëmb jigéen ñi bëgg na tamit ñu daal di fay jëlee déli bi nga xamante ni moom mooy daan jigéen ñi jóge seen këru sëy Chérif Dia cant ak ngërëm euh, ñeel na la projet bi nag euh, dañu ko tëral ngir euh, dund doy ci Sénégal rawati nag ci diwaanu Louga Matam ak Kaffrine jëwriñ ji ñu wàllu mbay mi ak jëwriñ ji yore wàllu càmm gi ñoom ñoo àndandoon woon tey ci suba ngir nag sos projet boobee lancé ko lu toll nag ci juróomi at lay doon Cheikh Abdou Khadre Mbacké Seck def mbay mi doon luy suqali koom ba ñu jot ci sécurité alimentaire maanaam dund gu doy loolu moo tax a jug projet d'appui à la sécurité alimentaire Louga Matam ak Kaffrine doon gox yi ñu taamu lu toll ci ñaar fukki milliards ak juróom si suñu koppat lañu ko financé dina tax am amul baykat yi gën a yokk. projet boobu du dina indi ndox parce que dinañ aménager 2000 hectares projet boobu tam dina fexe ba nga xam ni euh, meew mi ñu daan jël di ko tuur wala. Euh, légumes yeeg yoo xam ni dañ ko daan bay ba noppi du ko du ko tuur ndax amuñu naka la ñuy mën a demee ci marché bi ak piste de production maanaam yoon yu ñuy defar ci cent vingt euh, kilomètres dina mën permettre production bi di jógee euh, ci tool yi mën a egg ci ñin ñi ñu dind ko xam nga kooku itam lu am solo la. lu ñu xayma mooy projet bi duñ ci yàlla dimbalee ah ba nga xam ne luñ ci séntu yëpp am nañ ko ci képp képp koo xam ne yaa ngi ci biir projet bi. maanaam daa am lu tolloog 3 millions at bu nekk 3 millions la at bu nekk kooku xaalis la. ñett gox yi la ñu tàmbalee projet bi léegi ndool gi ñu fa nemmeeku moo waral taamu bile. surtout que zone yooyu dafa nekk zone yoo nga xam ne du ñoo déshérité li tax ñu tànn ñetti région yi Matam Kaffrine ak euh, Louga mooy du ñoo bokk ci région yi nga xam ne nee na ñu ñàkk foofu la ëppee ci enquête bépp boo nga xam ne rek mus nañu ko def wane na loolu foofu aussi amoon ay projet yoo nga xam ne ci wàllu agriculture ak élevage du ñu ko fa jotoon a commencé def. mbay ak sàmm doon yoon yi ñu war a jaar ba suqaliku doon gis-gisu ñaari jëriñ yi la si diiru juróomi at la ñu nar amal projet bile. Euh, waxoon nañ ko ci euh, ponk xibaar yi muy euh, AFP mi nga xamante ni nag jamono yi dafa daal di taxaw temm ngir gunge Macky Sall njiit la di Moustapha Niass dafa daal di jébbal boppam Macky Sall ngir gunge ko ci li nga xamante ni rek moom mooy wateek falu gox goxaan yi ñu dëkkmal moom mi nag di Moustapha Niass nee na képp koo xamante ni dangaa namm nag bersa yoon moom dana la teg fële du la gunge ndax taxawaayam moom mooy gunge Macky Sall. waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi daan ko gën a yaatal ci wàllu drogue lay doon euh, drogue bi nag gis nañ ni tolluwaay bi ci Sénégal moom lëmbane bu baax rawatina liggéey bi nga xamante ni nii euh, kaaraange yi ñu ngi ko ci def ndax liñ ciy jàpp euh, bari na lool waaye tamit bu ñu seetloo ci atum 2007 am na loi boo xamante ne nii ñu ngi ko duppee loi Latif moom dafa daal di xeex drogue bu baax ndax dafa jàpp sax ni crime la waaye dafa mel ni nag matale gi des na ñu ànd ci ak Chérif Dia Thierno Laurent Mendy fan yii ne mekku nan nii alkaati li ñu jàpp ci ñuy jël jëfandikoo drogue bari nan lool ba tax na ONG Jamra di artu kilifa yi. nekk fi di werante naan Sénégal euh, plaque tournante la du plaque tournante du wax ji amul benn njariñ li am solo mooy xeexum sinébar dootul affaire um benn réew wala ñaari réew mbaa ñetti weer dafa nekk un combat international boo xam ne grande puissance yi léegi dañ ko jël en charge ànd seeg fulla gu mat sëkk ndax pour ñoom. c'est un problème de légitime défense ndax ñoom dañu am ay firnde yu wér ni alal bi ciy jógee milliards yi ciy jógee bokk na ci li financer le terrorisme international. wante day ci atum 2007 wote woon nañ ci assemblée nationale loi bu ñu wax loi Latif Guèye ngir rek mu criminaliser teg ay daan yu metti ñi nga xamante ni ñoom ñooy jëfandikoo drogue. mais ñu bari nag di yëngatu ci wàllu xeex ak ak yelleefu doomu aadama jàpp nañ ni loi Latif Guèye boobu moo tax kaso yi fees. fii dem yëpp dañu naan loi Latif bi il ñu xoolaat ko. moom mu ci jublu woon tamit mooy fexe ba sàmm askan bi. lan moo tax loi jóg du pour feesal prison yi pour jàpp criminels yi isoler leen de la société looloo tax loi bi jóg léegi nag bu ñu nee mu ngi feesal kaso yi mu ngi feesal kaso yi nañu def ni pays anglo-saxon yi di def Canada wala États-Unis ñoom au ñu jàpp narcotrafiquants yi dugal leen dans la session de la cour d'assises dañ leen di beral à part benn cour spéciale drogue du du du solution naan. bon euh, nañu arrêté loi bi loolu du wax et puis c'est suspect ku defendre loolu ak koo mën a doon jàpp naa ne que c'est suspect ak ni drogue yàq àdduna bi yàq dëkk bi. Sénégal ñu bëri jàpp ni kon ñu ngi waaj a nekk li naan plaque tournante drogue li ko waral nag mooy frontière yu yaraax yi bu fekkee ne sax alkaati yi ñoom jàmbar nan ak jumtukaay yu néew yu ñu yor. sinébar bi ñu si des euh, di wax euh, ca diwaanu Casamance foofu it gis nañ ni la ñu fay jàpp bari na lool muy takk der yaak ñu yëngu ci wàllu kaaraange ga ñoom daanaka ñi nga xamante ni ñoom ñooy yore euh, sinebar bi di ko jàllale bu ñu yegsee si ñoom dina jafe lool ñu weesu takk der yooyee ndax dañ ci fooglu bu baax te bu ñu seetloo itam lu bari li ñuy jàpp foofu mu nga jógee daanaka ci réew yi nga xamante ni ñoom ñoo feggoog Sénégal Boubacar yi bu fekkente ne enclavement diwaan bu Ziguinchor tax na ba dundu askan wi daal jaaykat drogue ak ñi koy jëfandikoo amuñu lenn di leen ci metti ndaxte ñoom dañuy profité ci situation boobule ak ñàkk contrôle bu doy ci suñu frontière ngir dugal drogue bi ci Ziguinchor wala sax ñu yóbbu ko ba dakaar drogue nag bu ko tuddee du chanvre indien kese du cocaïne kese mais médicament yi ci la bokk liñ ci jàpp ëpp na maanaam ñu ngi ci jàpp. toll na si ay 70 lots de médicaments yu ñu jàpp si direction régionale du sud rek ñu jàpp bu dee côté drogue bi tamit euh, chanvre indien euh, plus précisément jàpp nañ si lu ëpp 240 kilos donc pour wax la ne loolu da ngay imaginer loolu yëpp duggoon fi mu nekk nii dina am lu bëri loo xam ne dina ko yàq si suñu dina ko yàq si suñu jeunesse parce que drogue. Euh, du ma wax ne du defar dara mais li mu yàq moo si dëkk yi nga xam ne mu ñoom ñoo ñu wër foofu lay jógee fu mel ni ay Mali Guinée Bissau wala si yeneen dëkk peut-être que bu tra jógee si yeneen dëkk traversé yeeg dëkk yooyu pour yëg si Sénégal te bu yegg see Sénégal li si ëpp Dakar lañ koy jëmale. gannaaw liggéey bu rafet bu douane bi Ziguinchor am na ab brigade buy saytu mbiru drogue bi ba tax na ci seen i jokkoo teg nañu loxo ci diggante 2011 ak 2014 fanweeri nit ak ñeent. fukk juróom-ñeent nekk ay doom bitim réew Boubacar Diassi vice-président bu Jamra ONG Jamra moom li mu xamle mooy ñi nga xamante ne ñi nag ñoom ñooy faral di euh, yor drogue bi ñu di leen jàpp euh, daan yi nga xamante ne dañ leen koy teg ci wàllu koppar lenn ni nañ koy jagleel ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy euh, takk der yi teg seen loxo ci drogue boobee nañ leen ko jagleel ndax loolu dina mën a tax ñu xeex bu baax wàllu ger bi rawatina ak ñi nga xamante ne dañuy ut a ger ci seen kaw ñu déglu ci maam Mactar Guèye ci micro Dia E- héroïne bi xam nga héroïne pure bi bi jógee euh, Thaïlande euh, Birmanie Laos euh, boo xam ne kenn raxu ko gramme bi rek quatre mille francs la kilo bi kon quatre-vingt millions kuñ ci jàpp kilo rek léegi dañ koy ful ñetti yoon bu ko defee mu nekk deux cent soixante-dix millions deux cent quarante millions ci wàllu drogue alors Latif nekkoon nag dinaa defar benn amendement boo xam ne bii war nañu seet xaalis boobu ni ñu ko war a def alors defaroon na projet amendement bi ba noppi yàlla dogal nattu am ci diggante bi waaye la mu def ci wax ci projet amendement bi te maa ngi ñaan les députés de la douzième législature ñu jël ko en charge dafa ne xaalis boobu au ñu di ko verser trésor ñu créer benn fonds de dotation comme ni ñu koy defee avec les magistrats comme ni ñu ko defee avec les responsables du service de recouvrement de la direction des impôts et domaines fonds de dotation boobu de bu amee des forces de sécurité yu def jalloore ci wàllu xeex contre Sine Bara ñu yëkkati ci lu am tat euh, lu am solo jox leen ko ndàmpaay. bàkk bi firnde la ko muy xibaaru uh, tàggat yaram yi ñu di ko tàmbali ak uh, football uh, juróom-ñetteelu final bu Ligue des champions dana dox ni ki tey ji ñi fas yéene jongante bokk na ci Bayern de Munich ak Arsenal Atlético de Madrid ak ASC Milan ñoom ñoo fas yéene nag jongante waaye li ñu seetlu moom mooy euh, Bayern de Munich ak Atlético euh, de Madrid ñoom nag donte sax euh, am nañu ndam lu ñu seetlu rek mooy boo sàgganul Ligue des champions bi ñoom ñooy jël raw gàddu gi ndax ñoom ñoo gën a taxaw Abdoul Aziz Kane Milan AC ak Arsenal war nañu wëlbati match yi ci huitième de finale bu Ligue des champions bi ginnaaw ba ñu amee défaite ci seen dëkk benn bal ci dara ci kanamu Atlético Madrid waa AC Milan ñu ngi jëm ci match bi gën a solo ci seen saison bi ndax ren dañoo nekk ci ay jafe-jafe ci seen championnat bi nekk ci fukkeeli place bi wute nag ak équipe bi di Atlético Madrid nekk ci forme jël ñaareeli place bi ca Espagne ci ginnaaw Real Madrid waaye ci kanamu Barcelone daldi nag daan équipe bu Milan bi ca dëkkam ak bitu Diego Costa Arsenal moom dina jafe mu am ndax day fekki Bayern de Munich bi ko daanoon ñaari bal ci dara ci dëkkam équipe bu Bayern boo xamante ni lu tegu ci kanamam mu jàll ko waaye nag bu ñu fàttalikoo daaw ci huitième de finale yi Bayern dafa daanoo ñetti bal ci benn balaa Arsenal di ko fekki daan ko ñaari bal ci dara huitième de finale yi nag dinañ ko àggali ci talaate bi ak ñaari match yi Paris Saint-Germain Leverkusen ak Barcelone Manchester City ginnaaw ndam yi ñu am ci match ale yi Paris. ak barsa ñoo gën a féetewoo qualification yi. gannaaw loolu ñu wax ci kii fi nekkoon boxeur di wuyu ci turu euh, Pape Mamadou Sow moom nag euh, dafa gaañu woon gannaaw gaañu gaañoom boo nga xamante ni nag amoon na ko euh, ci la jóge woon sax bàyyi li nga xamante ni mi koy def ci wàllu tàggat yaram ci atum 2011 la ba tey tey ji nag mi ngi wéy dina ci jafe-jafe li muy sàkku nag moom mooy kilifa yi dimbali ko taxaw ko bu baax ñu ànd ci ak Abdoul Aziz Kan mi taatana ay kàddoom. dañ nekkee boxe yu neuf combat après benn benn jour ma faal euh, France Irlande France Irlande sama adversaire posé wul woon parce que kenn xamul lu ñett mi la def kooku mosul existé si wàllu box ba mu si blessure am benn blessure kaña fii le français waxuñu ma dara dañoo bàyyi foofu depuis de ma envoyé lettre au soleil pour l'expliquer j'ai arrêté de boxer parce que je suis malade donc euh, la préfecture bi mu envoyé ma lettre pour ma gën territoire français ba mu génn territoire français dem Italie avec condition yoo xam ne. qu'un, qu'un, bon, je ne peux même pas l'expliquer parce que euh, sant yàlla quoi après c'est ça je dis frappé na porte yëpp envoyé na ministre des sports sama euh, dossier ministre de l'ambassade du à Paris à Rome ñëpp envoyé naa seen démb rek laa jox ministre des sports sama joxaat ko dossier bi j'ai à la télé mais y a du tout qui amul lenn loo xam ne yëngal ñu ànd yër li yéenekaay yi xëyandoo ak Fatimata Ba dal leen ak jàmm ci li ci yéenekaay yi Moustapha Niass yeesalaat na njëbbalam ci kii di président Macky Sall l'observateur ni njiital AFP bi parti bekk lépp la jox njiitu réew mi ndax moom Moustapha Niass xamle na ni du doon candidat ci woote présidentielle yu 2017 njiital assemblée nationale bi ni ci yéenekaay bi Macky Sall du ma gën gore man moom lay jàppale tey it ku bëgg demal sa bopp ci parti bi amoo sama ngërëm man Moustapha Niass te duma la jàppale ci lenn sama dërëm itam du dem ci yow Moustapha Niass AFP laas ne mani la Moustapha Niass kay AFP ak boppam ak lépp la jëbbal kii di njiitu réew mi moom ñas ndax nee na kenn du yàq diggante ak Macky Sall fileeg maa ngi dund man ñas moom rek laay liggéeyal yéenekaay bi ne am na ñoo xamante ne fekkee wu ñu réunion bureau politique bu AFP boobee moo di Malick Gakou ak Mbaye Dione ñooñu teewee wu ndaje bi Moustapha Niass ne li ci mënti am ku amoon say bëgg-bëgg bopp ci parti bi na ko teg de côté te xam ne man ak sama parti ñu ngi ci ginnaaw njiitu réew mi di Macky Sall ñi it ci ginnaaw njiitu réew mii la ñu nekk waaye seeni doxalin neexul président Macky Sall ndax fitna gi ñu amaloon ca Matam Farba Ngom Mamadou Mari Diaw ak Mody Sy le populaire ne am na ci ñoom ñi ñu jot déglu mooy maire ba Mamadou Mari Diaw ak Mody Sy kii di Farba Ngom moom alxamis lay jano ak enquêteurs yi waaye nag lenn am na ndax procureur ba xamle na ni ay kilifaam ñu ngi koy artu ci mbir moomee ci Walfadjri procureur bi ne ay kilifaam ñoo ko woo di ko menacé te bu wéyee moom Cheikh Diakhoumpa dina tekki ndomb ndomba tànkam le quotidien ne procureur bu Matam bi kay mi ngi chargé ay kilifaam waaye kilifa yooyu itam tontu nañ ndax xam le ne ni kii di Cheikh Diakhoumpa li mu bëgg moo di jóge ca maatam te loolu lu mu yàgg lijjanti la wax na ni dañ ko bëgg affecté Saint-Louis wala Dakar bu dul loolu moom Cheikh Diakhoumpa mu dellu jàngale si ndax ay kilifaam nee nañu moom sax bi muy amal point de presse ci mbir moomee yëgalu leen moom Cheikh Diakhoumpa li mu wax yépp amul lenn kay moo ko yitteel jamono yi moo di jóge ca Matam itam fitam toogul Lamine Sagna njort na ne ay terroriste ñoo dugg si ca dëkk ba ba tax na muy ñaan ci askan wi ñu moytu xew-xew yi wala bokk mbooloo mi Serigne Cheikh Thioro Bassirou Mbacké di dalal xel yi ne Sénégal musiba du fi am ndax ñaan yi fi maam yi bàyyi moo tax it ku fi bëgg def ñaawtee fit du sotti ma dellu ci l'observateur wax ci nees bu écurie Lansar la baleine de Lansar ne tafaatin du dara mënul bëre te it mënul dóor moom nees ne balaa gëm ne tafaatin du ragal mu nangu bëreeg moom ñu yenduk jàmm Euh, Fatima baa ñu di ko jaajëfal bu baax ñi féete woon ci xarale bi ak ñi jàpp ci xibaar yi ba mu yemb cant ak ngërëm ñeel na leen euh, jàngeen jëf ci seen ànd ak télévision Futurs Médias